ba tey jilee ñun mënatuñu rëcc ñun dundatuñu réew mi lañu xocc asalaamaaleykum mbokk yi ñoom mbégte di sant pour yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay senegal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñ réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm leen ni saafara ngi réew mi suqaliku réew mi taxaw réew mi yàgg ñu ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam ne suñu borom ni borom asamaan suuf da koo beral loxo ndax ñun dara manqué ñu te dara jommuñu lépp lu doomu aadama aajo si kaw suuf ngir jëm kanam suñu borom defal nañu ko muy géej di ay dex ay déeg suuf su nangu suñu borom defal ñu comme yu nekk ci biir suuf si comme yu nekk ci biir ndox mi defal ñu li ëpp solo mooy nit yu am xel xel rek koom la saa nit jëlee xelam daas ko dàmm ko bés ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ni njottam mënees woon yegg sax lu tax ñun Sénégal ñoom yi yëpp waaye ba léegi suñu réew mi ñun béggaguñ si ñun béyeguñu si dëkkuwaay dem ak a ñëw mbay napp sàmm wàllum góor ñi wàllum jigéen ñi wàllum mag ñi wàllum ndaw ñi béyeguñu si jàng ak jàngale béyeguñu si wér-gu-yaram te yooyu yëpp dafa sooxe lan mooy saafara si saa su ne dañuy ami gan yoo xam ne dañ fiy dikk gi loolu ñu indi si ay leeral léeg-léeg ñun ñu dem si gox gox googu dem fekk fa waa gox ba ñëw taataan ñoom seen xalaat si Sénégal lu koy yóbbu ca kanam tey nag ñu ngi fii si plan jaxaay plan jaxaay bokk si commune bi nga xam ne moom mooy jaxaay parcelle ak ñàkkul rab euh, plan jaxaay moom sànc la boo xam ne bu bees bu yàggul dara euh, maanaam juróom-ñetti at si gannaaw rek buñ ko fàttalikoo président Wade ginnaaw mbënd bi fi amoon si lañ jëloon ay nit toxal leen indi leen fii président loolu mu tuddee woon ko plan jaxaay ba fii gox bi tudd plan jaxaay plan jaxaay nag mi ngi bokk rek ci euh, département bu Tëngéej moom euh, fii ci euh, fii ci Ndakaaru euh, sunu jotaay bi jiitu nag ñu ngi si ànd ak soxna si di Astu Ndiaye Astu Ndiaye moom day yëngu si wàllum jëm kanam di yëngu si wàllum li ñu wër ñu koy woowee environnement am mbooloo moo xam ni da ko jiite ànd tamit ak góor gi Mansour Diak góor gi Mansour Diak moom délégué de quartier yi fii si plan Jaxaay moom moo yor seen kàddu soxna Astu di la nuyu la dalal la ziar. maa ngi lay fay Tunkara góor gi Mansour Diack yow di la nuyu la dal la ziar. Tunkara maa ngi lay fay. Euh, góor gi Mansour Diack yow euh, délégué de quartier nga fii si euh, plan Jaxaay plan Jaxaay ñaata quartier ñoo fi am. juróom-ñetti quartier moo fi am. kon juróom-ñetti délégué de quartier. plan Jaxaay yow biñ ko sancee fii la la fekk. waaw fii la ma fekk waaw. nga jógee fan. jàmm gën. jàmm gën ndox mi mm. nangu seen kër mi. doxal leen fii kër yi ñu yóbbu ñu ci camp yi camp yi. camp yi ngeen jiitu waaw ci camp yi lañ nekkoon. après ngeen ngeen toxu si fii. ñu toxu si Jaxaay. Euh, bi ngeen di toxu si fii euh, boobu ñaata xaalis lañ leen doon laaj. non laaj yi ñun xaalis. joxe joxewu leen dara. déedéet joxewu ñu dara. da ngeen ñëw rek jox leen kër. comme ni Ablaye Wade waxee woon génn leen seen kër yi ndox mi bari na amu leen doole defar ko génn leen seen kër dinaa leen jox kër foo leen dëkk dinaa leen ko jox gratuitement ndax néew ju doole ngeen. ñu génn dem ci camp yi nekk ñoom ñu gérer ci camp yi ba ñu def fa deux ans et demi gannaaw gi ñu ñu léegi day indi génn ñu jox ñu am locataire ña fa nekkoon locataire ñu libéré leen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay propriétaire am ko seen kër ñu joxoon leen ay location six mois di leen dem leen fii ak six mois dinañ leen woo jox leen seen kër euh, niñ ko waxoon aussi noon lañ ko defee. bi ñu def si juróom benn weer. yéen fii doo leen fay luyaas. ñu fay luyaas. di ngeen am ngeen làmp. am na làmp waaw ngeen ndox. waaw di ngeen fay làmp ak ndox. déedéet waaw parce que kër yi dañuy kër yi dañuy dañuy fay ndox yi. dañuy fay ndox dañuy fay làmp. Hmm? Euh, luwaas daal ngeen dul fay. waaw luwaas duñ ko fay est am ngeen ay këyitu kër. waaw mooy këyit yi ñu joxoon bii ñu HLM joxoon. këyitu HLM la. waaw mooy ñu HLM joxoon bi ñu attribué kër yi. ay lan la titre foncier la am. fiche d'attributaire. Ah, maanaam daal attribué nañ leen kër goo xam ne kër gi ni la yaa ko moom jox la kayit bi. léegi euh, fii euh, yéen seen quartier bi ngeen nekk. nu mu hmm. tudd. unité 21. unité 21 ñaat nit ñoo fa yeewoo. unité 21 li fay yeewoo bari na bari na parce que unité boo xam ne def na ay 671 maisons yoo xam ni presque 600 yi occupé nañu ko. waaw kon la fa yeewoo bari na. xam nga mais yow en tant que chef de quartier en tant que hmm. délégué de quartier. Hmm. Euh, population unité unité 21 ñaata la. population unité vingt 21 dina dem environ ay vingt mille personnes. environ munoo amoo chiffre exact. exact non parce que bés bu nekk. dafa am ñoo xam ni ñu ngi toxu si. waaw ah, d'accord mais bu bu nit toxusee yow en tan que délégué de quartier di nga ko xam. dama koy am mën ko ko répertorier. mën a tax ba yow euh, sa base de données boobu nga koy alimenter. parce que yow normalement en tant que délégué de quartier mhm. bés bu ne bu ñu la laajee ñaata nit ñoo fa yeewoo loolu war nga xam est-ce que xam nga euh, si population boobu ñaata ñooy góor ñaata ñooy jigéen. non non. ñaata ñooy élèves ñaata ñooy étudiants. non. ñaata ñoo am liggéey ñaata ñoo ko ñàkk. non ñi ñàkk liggéey nag bare nañu. waaw euh, mais góor gi yéen jaaru xabaar yooyu lu tax doon ko am. xaw ma xaw ma exactement lu tax amuñu ko xëy na liggéey bi suñu kii liggéey bi moo tolloogul foofu rek. waaw lool de parce que ay nit tamit boo leen jiitee te xamoo nit ñi xamoo ñaata lañ xamoo kuy góor xamoo kuy jigéen est-ce que dina nga mën a liggéey pour ñooñu liggéey boo xam ni dina am maana dinañu liggéey ndax borom kër gu nekk dinañ ko xam dina xam kan moo moom kër gi kañ la fi borom ñëw mais ñaata nit a nekk ci biir këram ñan ñoo ciy góor ak ñan ñoo ciy jigéen loolu moom délégué de quartier yi moom amuñu ko. Euh, loolu liggéey la boo xam ni délégué de quartier wu Sénégal bi yëpp war nañ si góorgóorlu bu baax ba am information yu wér si quartier yi nga xam ne sañ ne euh, góor gi tey yéen yan maanaam lan ngeen di dund yéen si quartier yi. comme lu mel nan. Euh, maanaam nekkin bi. nekkin bi am na ay jafeñ-jafeñ tuuti jafeñ-jafeñ yi bokk na ci dëkk bi biñ ko liggéeyee. kër yi àgguñu ni ñu war a na ñu waroon a mel meluñu ko ndax xëy na ñun ñi nga xam ne ñoo doon sinistré yàkkamte woon nañu kër yi ba état bi jox nañu ko te kër yi àggul ni mu war a àggee. dañ ko taf tafee. Euh, taf tafee wala. taf yëngal la fa nañ ñu ko joxe daal noonu lañ ci nekkee. am ah, loolu mooy taf yëngal am ci yoo xam ne dafa des liggéey bi dafa des. parce que man kër yi dugg naa fi mais euh, kër goo xam ne juróom-ñetti at dong la am. mel nii mais lii lii jaaduwut. kooku ci liggéey bi la ci entrepreneur bi ko liggéey la. mais këru plan jaxaay ñoom baaxuñu moom. waaw loolu moom ci mi ngi nekk diggante état bi doon liggéeylu ak entrepreneur yi ko doon liggéey lu ci baax lu ci baaxul seen diggante la mais ñun population bi nga xam ne dañu attribuer kër yi ni ñu ko joxee noonu lañu fiy dëkkee. est-ce que euh, fii tey euh, yéen ni ngeen dëkkee euh, am na ay saafara yoo xam ni bëggu ngeen ko si indi. saafara yoo xam ne ñun ñoo ko ci indi. bëgg waaw bëgg ngeen mu saafaraw ay yoo xam ne mu waaw bokk na ci kër yi nga xam ne pareeguñu. Uh-huh. bokk na ci yenn quartier yi nga xam ni lamp yi ñu war a am amuñu ko dama bëgg wax ni day am quartier ku mel ni unité 21 quartier bi am na partie boo xam ne amuñu lumière amuñu ndox waaw te toujours si biir yi unité 21 la. loolu ku ko waral lijjanti. Euh, état bi entrepreneur yi. Hmm. Hmm. waa léegi yéen en tant que délégué de quartier lan ngeen war a def pour loolu ngeen indi si tuuti saafara. ñun li ñu ciy def mooy li ñu daan def lépp loo xam ne jafeñ nañu ñu dem ministère jël rendez-vous jooytu fa lu ñu ci mën ñu def ko lu ci des bu ñu dellusee di ko di si doxati ak di ci wax rek. waa ginnaaw jooy bi tamit xam nga jooy bi am na solo hmm. mais góor gi action yoo xam ne yéen en tant que délégué de quartier war ngeen mën a tamit 671. Euh, parcelle yi am foofu yëpp. Mhm. ñu xool ñooñu nan lañ ni manko am lu ñu def ngir problème lumière beeg yooyu parce que seen gu yaram la ak seen kaaraange. mais loolu am na loo xam ne ñu ngi ko ciy def. loo leen def ak. am na loo xam ne ñu ngi ko ciy def ndax lumière yi dañuy paan population bi ñoo koy dépanner am na boo xam ni maire bi ñoo nu si jàppale defaraat yi nga xam ne yàqu woon na fi yëpp. maire yi yaa ngeen di liggéey ak ñoom. waaw ñoo ngi liggéey ak maire bi moom bu baax sax. fii amu leen jafe-jafe Euh, kaaraange gi nag moom euh, sanc yu mel ni moom toujours dafay am ay jafe ndax léeg euh, nga dégg fii comme da am dëkk dëkk yu ñu wër yoo xam ni daanika dafa bari garab ñu gis problème mu jaan. fi am nay jaan. oui wala ñu gis fii. yow gis nga fi jaan la sa ça ay une semaine yooyu rek. gis nga ko jaan fi jaan waaw. jaan bu mel nan. jaan jaan bu mag jaan bu mag. Ah. moo la ëpp yow. <laughs> jaan bu ëpp yombul. waaw yaa ko ëpp kon kay du bu mag. <laughs> ñun li ñuy wax jaan bu mag ban couleur la am jaan boo xam ne dafay loree rek. jaan ban couleur la am waaw jaan bi couleur bu jaune la am. jaune waaw bu jaune wala xëy na du kii bi nii. jaan bi nu mu tudd. Hmm? non tur jaan bi xaw ma ko. Ah, gi tam loolu tam waroon nga si xabaar. <laughs> Eh, eh, parce que lu mel noonu ah bu amel noonu bu amee. Hmm. da ngeen di woon nii ñi euh, wa Eaux et Forêts ñu wax leen jaan bi lan la ngeen mën a moytoo mais euh, nit jaan mosu ko fee maat. Euh, euh, nit mat jaan màtt na fi nit ba mu dee mais nekkuloon ci biir ci biir jaxaay dafa nekkoon ci parti ñàkk rëbb bi. ci toolu ci toolu kii yi. bon ñun nag fu fu jaan <laughs> nag moom di màttaate moom euh, foofu moom xam naa ñoom soxna Astou ñii da soxna Astou yéen mi yëngu si wàllum environnement jaan yooyu <laughs> moom dana wax <laughs> soxna Astou yow kuréel gi ngay yëngu nu mu tudd. Euh, Tounkara ñun ñoo tudd les aigles de Dakar slash Jaxaay waaye dama bëggoon nga may ma ma nuyoo nag. Ah, waa nuyoo bi mun ta ñàkk. damay nuyu waa Jaxaay ndax ñun ñoo mujjee dëkk Jaxaay ñoo dëkk unité ci ci fond ba mais bi ñu fi dëkkeek léegi amul deux ans wala bu amee deux ans ci la yem mais dañu ñëw intégration bi dafa yomb ku mel ni moom mii suñu papa dafa ñoo ubbil ku mel ni jaane daf ñoo ubbil. Chérif mi nga xam ne moo démarché émission bi ak Diané dañ leen di gërëm ndax lii c'est promouvoir la commune damay gërëmaate kay ah. te yaa ngi nii déplacé wu ñëw ba fii samay aînés les les <laughs> béliers ñi ngi toog les amis protecteurs de la nature ñi ngi toog ak sama xale yi club nga xam ne 70 pour cent sama club membres yi c'est des enfants aywa bon Assou donc ñëpp sama yaay ak sama papa yi ñoo ñëpp nuyu nañ yi nekk jaxaay ñoo jaay <laughs> foofu ñu nuyu leen bon euh, Assou Ndiaye mhm. yow leeral ñu bu baax les aigles de Dakar su doon di yëngu. les aigles de Dakar en fait club la euh, club CPN c'est connaître et protéger la nature euh, les aigles boobu nag li ko wund mooy peut-être dama nekk taaw bëgg di assister ay nit di ko def affaire bi dab ma ba man kese mënatuma ko ma dëkkoon géejawaay comme ni mu ko waxee ñun suñu yaay la kër gi ñu ko jëndaloon nekk ci ndox bi mais ñu nekkuñu woon ci ndox bi. te comme ni mu ko waxee dëgg la jaxaay am na ñu fi jóge ci ndox mi am na ñu fi jógewul ci ndox mi mais li tax ñu wundu club bi euh, pour protéger l'environnement ce n'est pas que protéger l'environnement seulement ndax am na yeneen service annexe Tunkara comme ni mu ko waxee jaan boobu fi fi dee ya deux semaines kër ñoom Papa Ndiaye mel na la mi ma doon waxtaan ak yow xam nga yow xamante nañu donc sama koñ la man dinaa la yónnee élément bi hmm. euh, photo nañ ko ci portable dinaa la ko envoyé. jaan bi ban xeetu jaan la. man ñemewu ma jaan ndax du ko seetaan sax télé man ñemewu ma jaan ñemewu ma mbóot du ma ko xool. Hmm. gis naa ko nii muy noir mais munu la wax couleur bi nii la ngand na nag. xaw na xaw xaw xaw na xaw tolloog yow jaan bi nga koy tolloog rek sam papa xaw na tolloog yow donc Tunkara as ba mu waxee loolu ma woo jaan bi mu ñëw maat jaan jaan bi moom du ñëw donc Tunkara nit ku nekk fi nga dëkk nga am waaw loolu ñun ñi ngi dëkkoon géejawaay ci booru géej waaw su yéen jaxaay boobu ba léegi waa CPN seen CPN bi lan defagum si wàllu environnement jaxaay suñu CPN bi loolu laa lay wax li ko indi mooy le fait d'assister ba nga xamante ni on n'est pas organisé benn moment ñu ne ñun kat suñuy projet dafa bëri ndax environnement mi ngi ci santé mi ngi ci éducation mi ngi ci entrepreneuriat mi ngi ci waaye ku nekk li nga am ngay nduggee marché ñu ne nañu commencé par benn ñu commencé par l' environnement waaw léegi est-ce que am ngeen ay résultats ay actions yoo xam ne bien sûr club bi bi mi ngi judd le 21 décembre 2014 bi ñuy def euh, assemblée générale bi y avait environ trente personnes amoon na chance moom mii sama délégué de quartier sama papa toog sama ñaari notable sama papa ak ay xaritam toog sama ñaari imam toog imam Ndiaye imam Diallo samay euh, aînés les béliers et les amis protecteurs de la nature toog y avait 60 pour cent des enfants jigéen ñi nag laa fa gisul woon lu bëri loolu xaw na maa jaaxal. wala yéen ak yan yan résultat ngeen amagum. donc résultat yi ñu am mooy bi ñu defee PV pour moment amaguma ay xale yu mag pour bureau bi. man maa nekk di ko piloté ak ñaari xale donc dañuy jàng je compte recruter six euh, kii membre donc kon amagu leen résultat si am nañu résultat ci loolu laa ñëw léegi bi ñu bindee suñu partenaires yi ñu ngi France tontu nañ ñu léegi ñoo ñu yónnee sax livre yii nii hmm. donc livre yi c'est des manuels am naa ci une dizaine ça va ma permettre d'éduquer les enfants ñu euh, am léegi manuel yi dañ leen imprimer am nga si ay euh, kii yu bëri am nga si yu bëri yoo xam ne am naa ci une dizaine bareegu léegi nu may def su may réunion ak xale yi di def ay atelier di am yu ma leen ciy jàngal di ko récupérer ba am ci yu bëri donc lii dafay permettre ñu am éducation de l' environnement. bon à part livre yi nga xam ne dix rek ngeen si amagum ban résultat ngeen am. Euh, def naa fi une journée verte def naa def nañ fi sax laay wax ndax journée verte boobu ba tey la mairie était représentée le maire euh, ki nekk président commission environnement monsieur Pape Niane représenté maire son DC ak madame le maire bii fi nekk. Euh, sama papa bii délégué de quartier nga xam ne moom du tànkam lu dara ma nga fa woon samay imam ña nga fa woon euh, le commandant Badiane mi di jël retraite ma nga fa woon et le commissaire Traoré représenté par inspecteur Ndiaye euh, tamit kii ma nga fa woon nu mu tuddati ñaari association nekk suñu unité président Yaya ak président Ndaw kon loolu dama koy rafetlu Tunkara ma eggale rek ak capitaine John waaw waa ingénieur le chef de secteur bu parc de Hann nga xamante ni 650 plans yi ma joxe inspecteur John ak mairie bi ñoo ma ci dimbali. léegi plan yooyu yëpp jëmbat ngeen. plan yooyu yëpp jëmbat nañ ko yaa ngi leen di te avant ñuy planter man photo naa euh, les quartiers avant te dinaa la woon photo yi pendant et après. léegi euh, plan yooyu yooyu ngeen jëmbat garab yooyu fi mu toll nii ñu ngi dund. ñu ngi dund am na yu sut amoon na ay manguier ay citronnier. amoon naa mantalis mais léegi Astou lu tax tey amul implication wu quartier bi à grande échelle. ci loolu laa nekk nag parce que comme li ñuy wax rek ñaar a mën kenn te ñett du bëri. parce que yow sa sa sa réussite. Mhm. ah dafay dañ koy nattee si ñaata nit nga boole si affaire environnement parce que affaire environnement asu du affaire benn nit du affaire groupe ñetti nit ñeenti nit environnement ñëpp la war a intéressé ñëpp la soxal parce que environnement bu yàqu ñu ñëppay dee. waaw kon nag yow tey mënoo yëngu si environnement asu nga nekk yow kott ak juróom-benn xale loolu mun ne. léegi nag si loolu nag recruter nañu. au début on était 30 maintenant nous sommes 80. 80 yi loolu baax na waaw 80 yi euh, les 70 pour cent c'est des enfants ah euh, 30 pour cent yi ñooy nekk. adulte environ. mais asu environnement jaxaay ku ko gis tey bon doo ko nawloo daal. doo fii xam nga. moo tax salte na euh, mbuus yaa ngi naaw fii mbalit yaa ngi nele mais asu yéen xanaa liggéeyu leen. Euh, euh, kun ci loolu laa moo tax émission bi dafa ñëw à son hmm. parce que gis nga commune li koy doxal commission yi ñañ fa teg waruñu faa nekk rek di nelaw mais man sentiruma leen dinañ ma mere mais je dirais que les commissions dorment sauf l'éducation muy madame Mariam Koulibaly mi fi nekk. Pape Niane environnement mi ngi góorgóorlu ah ñoom lu mu fi nekk rek moo tax nga wax non ah, ngi nii mi ngi salté. Ah, man kon laa nekk mais xam na ni l' environnement dafa transversal soo amul environnement bu baax doo am santé doo ah, a mais dans la réalité fii dafa salté. dafa salté mais yéen lu tax ngeen nangu loolu. léegi nag ci salté boobu Pape Niane mi ngi góorgóorlu mais doyul laa lay wax léegi ñun bu góorgóorlu woon fii set asu ñu waxante dëgg nag dañu bàyyi raayante bi tunkara raayante wuñu mais des boobu xam nga nit kuy raam te war a dox da ko naan mi ngi raam man hmm. doo raam ma ne da ngay moom mi ngi raam quand même mais raam boo xam ni xoolal xoolal environnement bi nu mel asu lii yow yow lii waroo ko woon nangu xoolal euh, war leen ko nangu tamit wax la nan lay procédé xam nga lan laay déploré avant bi fi délégation spéciale nekkee man personnellement dem naa mairie pour ut ay renseignements di demander calendrier de l'environnement pour man ma mën a xam sama plan d'action joxuñu la ah parce que amuñu ko amuñu ko peut-être dañu doon liggéey noonu classé wuñu ko waa léegi am na ah léegi am na moom mi ngi liggéey mais li muy liggéey classé wu ko waaw ba léegi calendrier de l'environnement amagul si commune ma ne la amul amul ko waaw bu amul nan la liggéey di amul waaw kon kay mooy kenn liggéeyu sama journée verte yi ma def ak yooyu maa ngi def PV yi maa ngi koy classé te loolu jooylu naa ko ci DC monsieur Kane sama maire sama xarit il est réceptif nag il est réceptif ah, wante war nañoo gën a yëngu mais asu yow ah, non à part environnement santé mi ngi sooxandi tuuti wala domanial mais yeneen te xoolal ci 15 commission Tunkara loolu mënul tax commission bi di di di dox te en fait man je me dis que ne se développer c'est développer les autres. waaw ah, loolu moom am na solo mais surtout c'est c'est aussi protéger l'environnement nit mënul développer gox mënul développer te environnement ñu ngi koy sàggane environnement bi nag munuñu si yëngu te amul calendrier pour l'environnement. amul de donc yi ñoom dañuy koy xëy na bu ñu jógee fii dina faj. ñoom dañu leen a wax wax dëgg nag liggéeyuñu parce que bu ñu calendrier environnement ñu gis ko fii si moom sax mi ngi góorgóorlu day soox oh, non non moom mi ngi góor dañ war a buux pour mu dox moom mi day soox dañ koy buux pour mu dox mais moo tax ñeneen ñi nelaw waaw calendrier bi est wax na kañ lay a ah calendrier bi peut-être ah, comme euh, actuellement nii euh, man maa ngi def ay démarches parce que dama am sama label ba nga xamante ni entreprise de télémarketing la te bi ma ko dugalee ak actuellement je suis mandatée par la mairie léegi ci collaboration boobu ak DC mooy li ma la wax ñoom. ils sont très ouverts xam nga nit ki nga xam ne du la ne déet. waaw te di la jox lu mu am kooku mënoo koo ŋàññ. mais ñi mu ko séqal tamit dañoo war a agir. bu ñu amul staff bu dëgër. buy agir à temps du ñu dem. Euh, loolu moom dama si ànd cent pour cent euh, communes yi vraiment si wàllu environnement dañu sàggan parce que li waa Jaxaay nii li leen li leen dal nii commune Euh, jaxaay parcelle ñàkkul rab amuñu sax calendrier wu commune yëpp tey noonu la tëddee calendrier environnement am ko te yaa xayti environnement moom boo ko ko fonkul fonkoo sa bopp boo fonkul sa bopp mënoo jëm kanam loolu mënta ne góor gi euh, Mansour Diack ban message ban dénkaane nga bëggoon ñëpp dégg ko euh, li ma bëgg ñëpp dégg ko lu cëpp njëriñal commune bi la bokk na ci commune bi Euh, li mu war am commune bu bees la li mu war am amu ko li nga xam ne moom la commune bi yaakaar mu war nekk njëriñal commune bi war indil commune bi dara ndax moom lu muy liggéeyee surtout mairie bi amuñu ko xoolal usine bi usine Kounoune. usine bi bokkul si yéen de waaw moom laal bëgg mi ngi ne à 500 mètres. waaw bokk si ñun ñoo ngi ko taf Mbambilor. waaw bi Mbambilor la jëm. waaw usine sédiment sédiment bii. biñ ko fii def mais fii la ñu ñëw si jaxaay jaxaay la ñu waxtaanal jaxaay la ñu defal accord yi lépp jaxaay lañ ko defal. léegi ñu bokk baal ma tuuti bokk na ci li ñu waxoon ni bés bu usine bi commencé soixante dix pour cent yi ci population jaxaay lañ koy jël. Hmm. usine bi non seulement que jëluñu kenn si jaxaay mais ngi di jël usine bi taf ko taf ko Tëngéej. waaw Pikine euh, Rufisque Ouest la bokk. ñu taf ko ñu taf ko Rufisque sédiment fi mu placé naka la mënee bokk ci commune Rufisque. ah loolu mooy ñu ñoo leen ëpp doole rek. loolu nag ñun ñoo ngi taxaw jonn ci xeex loolu li nga xam dafa war ñëw ci commune bi il faut dafay ñëw. ci commune parce commune bi amul recette de. commune bi amul dara. <laughs> commune bi du usine commune bi du dara du bitik du dara. Euh. moo tax maire bi. Euh. Euh, mënuñu leen wax dara ndax maire yi buy liggéey day am lu muy liggéey. mais maire tamit dafa war a inventif ut ay recettes additionnelles ut ay pexe loolu. maanaam pexe du jeex. mais d' abord na nga am li nga xam ne yaa ko war a moom mu war dugg sa commune. waaw mais wañ nañ wañ nañ sa loxo kay ba nangu ko xam nga loolu mënatoo si dara. dinañ mais dinañ ko dinañ ko xeex ñu wañ suñu ba jot li nga xam moom la war a jot. bon yow léegi kon daal sa message mooy yéen di ngeen xeex ba jot li ngeen war a jot. bu neexee la. bon ñun tam góor gi dañu am message pour yéen. yéen délégué de quartier yi. Mhm. war am information yu war si population yi ñaata lañ ñaata góor ñaata jigéen euh, ñaata mag ñaata ndaw ñaata ñooy liggéey ñaata ñoo liggéeyul ñaata élève ñaata étudiant góor gi loolu dañ ko parce que information yi soo ko amul maanaam doo mën a liggéey c'est pas possible liggéey moom mi ngi tàmbalee si information. Euh, loolu ngay laaj euh, ñun amuñu ko xaw ma ndax yeneen délégué de quartier ci yeneen réew yi wala yeneen ci yeneen dëkk yi xaw ma ndax am na mais ñun fii amuñu ko. waaw léegi man sama dénkaane mooy yow. boo demee agence nationale des statistiques et de la démographie fii ANSD boo demee seen site internet góor gi yow di ngay dem internet. non non. góor gi méngoog jamono di. Euh, waaw waaw loolu la yàlla dogal. non yàlla kay dafa dogal nga méngoog jamono ndax fekkee nga jamono. da nga ni man ndax di nga dem internet man la déedéet. waaw man la méngoog jamono. man la loolu la yàlla dogal ba fi mu toll nii. yàlla li mu dogal <laughs> mooy fekkee nga jamono. <laughs> ku fekkee jamono da ngay méngoog moom. waaw déglu ma déglu Tunkara. góor gi nag munoo dëkk dans le passé nag. xoolal Tunkara déglu ma wax la. gis nga fii jaxaay lépp lu ñu mën ñi ngi koy def ci population bi chef de quartier yi taxaw li ñu war taxawee. góor gi li may wax ak li nga wax du benn de. xam naa yaa ngi jéem a labal jën bi man li may wax. mooy non li may wax non da nga koy jéem a labal jën bi moom mënta lab. li may wax mooy yow. góor gi danga nga war a jamono. di war a dem internet. di jël ay information gis nga surtout ANSD soo fa demee. Hmm. information yëpp a nga fa. te boo jëloon sa téléphone bi nga dugal si euh, crédit 200 boo leen woowee. Mhm. ñu jox la information yëpp mais góor gi nag yéen yaa leen war a tamit gën a yëngu parce que délégué de quartier yu bëri ñoom dañuy am titre délégué de quartier rek maay de mhm. mais information quartier bi sax yoruñu ko mais loolu ñooy liggéeyu ah, ñu. ñun de fii. koo ci dem quartier mën na la jox information. boobu yow de mënoo ko mën naa ko. aywa may laaj. amul benn délégué de quartier boy dem mu génne la ko. moo tax man la liggéey baal ma tuuti baal ma tuuti ñu parce liggéey li muy ji li ko jiitu. mooy jëli information. xoolal la liggéey tàmbale. délégué de quartier mën na recen mën na recenser population bi. waaw borom kër gu nekk. kër gu nekk mu xam kan moo ko moom numéro kër gi li mu war xam me kër gu nekk ñaata fa yeewoo. ñaata ñoo cay góor ñaata ñoo cay jigéen ñaata ñoo cay ndaw ñaata ñoo cay mag. recensement yooyu état toujours de dafa yónnee. ay nit ñi di ko def. waaw ñun délégué de quartier daañu leen accompagner. waaw ñu def recensement bi mais après document yi day dem. waaw léegi délégué de quartier léegi document yi bu demee. yow délégué de quartier nga dem topp document yooyu dem jëli information bi. document yooyu nag topp ñu ko. waaw loolu nag loolu daal ma waaw ah. non on passe pas ah parce que loolu góor gi solo bi mu am mooy <laughs> hmm. nit. boo leen ay nit boo leen jiite hmm. te xamoo leen doo leen liggéeyal sa bopp ngay liggéeyal yow daal am nga sa titre délégué de quartier maanaam di kii maanaam ñu naan góor gi kii nangam sangam mais liggéey bi tàmmaleegul ndax amagoo information yi ngay liggéey dama la gi nag da nga war a méngoo ak jamono nag di def internet déglu ma am am nga page Facebook. déglu ma mani. <laughs> est-ce que bi am na page Facebook. mais am na ko fii ñi ko fi am bare na. non non quartier bi si boppam laa wax. non quartier bi ci boppam amu ko. yow Assou Ndiaye ba ma bàyyi ma ma defal ne ko de <laughs> góor gi Mass Ndiaye li ma wax mooy yow hmm. góor gi méngoo ak jamono. parce que jamono ji dafay dox ak internet. nga war a am page Facebook yow en tant que délégué de quartier. Mhm. quartier bi am page Facebook. Mhm. quartier bi am page internet. mais yooyu yëpp góor gi bu amul mooy méngoog jamono. tollooguñu ca. ah xëy na daan ca toll ji mais tollaguñ ci. dama leen ni ba fii nu toll li ma la wax moom ba fii nu toll laa la xëy na ah. <laughs> xoolal délégué de quartier kenn méngoowu seeg jamono. ñoom daal hmm. da démb la ñuy dund. te nag tey moo xew. ak ëllëg bi ñuy dunduñu démb parce que li délégué de quartier di dox. Euh. ak di ko wax ci dëkk bi mais ñoo ngi ci. <laughs> waaw mais yéen amuleen leen information quartier bi nekku leen si internet. am nañu information bi le fait que nga am sa population sa sa sa sa dëkk kër gu fi nekk xam nga borom kër gi kër gu fi nekk xam nga kan moo ko moom. waa mais non nga war dox ci quartier bi yaa ngi koy dox. mais Kanta waaw loolu mooy démb xam nga démb. délégué de quartier noonu la doon dundee. xam na boroom kër yëpp. mais tey. Hmm. da nga war a xam exactement hmm. population bi. ñaata étudiant ñaata élève ñaata handicapé euh, ñaata ñu néew di doole yooyu tey yooyu mooy information yi ba pare yooyu nag nekk si internet nga fay dem di jëli ay kii góor gi yow di ngay ah, ah, ordinateur dama leen foofu ngay wax ñun tollooguñu foofu góor ak jamono nag te délégué de quartier yi war dañ fexe jox leen tàggat leen yaa ngi dégg tàggat leen ñu méngoo ak jamono xam laam fan nañu dem jëlee xabaar xabaar yooyu boo ko jëlee ba pare nan nga koy traité boo ko traité ba pare maanaam nan lay demee ba jëriñ quartier bi mais ñoom ba utile leen ay page Facebook ñu na nga maam am ay site internet parce que ñoom méngoo ña ñoom <laughs> Assou Ndiaye yéen euh, seen euh, les aigles de Dakar am ngeen page Facebook Euh, ñun amaguñu page Facebook. Ah, Tunkara déglu ma rek méngoo nañu ak jamono gis nga sama papa li nga koy laaj wax na dëgg. car euh, commune bi commune bu vierge la nous sommes environ. c'est pas vierge 41 600 habitants dont 20 680 hommes 20 882 euh, femmes. Hmm. man bi ma mujjee laajte renseignement yi dañu ñu ne recensement yi mujj yi paase nga xam ne man mii sax def naa formation yu ANSD yi. la liste n'est pas exhaustive te amaguñu résultat yi pour jaxaay léegi loolu moom du ci fotam kii du tànkam lu dara mi ngi dem fépp te pour te dire que ñun on se déglu ma ak jamono ñun récemment suñu école bi ñu tabax moom ak sama sama ñaari papa notable ba ca koñ ba Mamadou Niang ak Pa oh. ñoo def enquête recensé xale yi commencé suñu école madame madame euh, mi jiite commission euh, éducation jiital maire ñu ñëw def ci dara yaxaay du dem de dina dem parce que dangay nëpp nëppal nëpp nëppalu on se prend en charge dama koy décrier ah, c'est-à-dire que l'institution doit euh, ah, nous accompagner on ah. se prend en charge mais information boobu moom ñoom ñoo ko war a jox amu ko moom moo ko war a jëli mais man mi ko laajte sax amuma ko moom laajtewu ko nag yow la sa message lan la. Euh, man Tunkara waxaguma ba nga naan ma sa message xam nga l' environnement. waxtu bi euh, jàppandi na nañ ci dem bu gaaw en l' environnement n' est pas que planter des arbres ñun planté nañu 650 euh, garab doomu am ay arbre fruitier ñu ngi koy protéger nag ndax planter seulement ça ne suffit pas il faut planter entretenir et protéger. mais tamit gestion des ordures ménagères insalubrité bi man def naa ci enquête pour ministère de l' énergie Tunkara mënuñu comprendre commune bu mel ni Jaxaay am problème yi nga xamante ne ñeme wuñ ko tudd parce que sa dëkkandoo da lay mere wala état bi naan da nga koy ŋàññ déedéet dañu am problème d'électricité électricité te euh, on quand on parle d'environnement on parle de sécurité ah góor gi nee na am na fi. électricité am na fi mais ak nu muy amee comme ñun suñu quartier par exemple ñun ñoo mujjee ñëw mais ñun dañoo déggoo ak ñoom dañoo cotiser pour am les normes sécuritaire jënd ah, ay câble yu mag jàmm jàmm am nga am na parce que lan moo tax amul am na wala amut tunkara ni ñuy cappee fiil yi baaxut day lakk suñu kii yi te suñu rey na fi fas di mën na fi rey xale wala mu rey fi keneen donc su fekkente ne nag ñun dañoo nar a nekk victime Macky Sall Ablaye Wade loolu du dem Macky Sall foog mu jël ñu en charge mu xam ne les les institutions demeurent et les hommes passent. waaw léegi yéen mun leen jël seen bopp en si wàllu woowu. jël nañ suñu bopp en charge ça nous a coûté chaque ménage presque quatre vingt mille. ñun ñoo cotisé dugal suñu ndox dugal suñu courant. ba ñoom am loolu mais loolu état moo ko war a defar. waaw léegi comme na yéen rek la ngeen ko mais loolu dafa bokk ci environnement. waaw d' accord beneen bi. Eh, y' a plus mi dina am na oto mbalit na fi ñëw. oto mbalit mi ngi fii ñëw mais des na daf am sama mbokk jigéen tamit ñu tayal au lieu ñu xaar oto bi bu ñëwee ñu sotti dañu jël seen couche doom yi dem xool bayaal di ko fa sotti. Hmm. te weñ yooyu di fa takk dafay indi ay fièvre. am na tamit ay xar munoo gis benn kër trentaine de mouton man am naa fi sama ay xarit seen kër am na plus de vingt mouton boo duggee ci kër gi doo ko xam. bien carrelé dafa set. mais dafa bàyyi seen xar yi ñuy lekk suñu garab yi nga xam ne dama ciy sonn bala ma koy am. Hmm. puub si mbedd mi te loolu day indi fièvre. dëgg man fàtte naa bien sûr dañuy def sensibilisation ci lañu nekk nii dama cee wéet moo tax may wax pour ñu ñëw jàppale ma ci léegi nag tamit Tounkara des na parce que dafa am benn carrière bu ñu dugal ci xolu jaxaay ñun mënuñu dëkk ak carrière yor ay xale yu ndaw ñii asthmatique ñii allergie comme man ak yeneen ñuy dëkk ak carrière loolu mënul nekk beneen bi y a plus de cent maisons yi nga xamante ni eggul mi ngi fii donc c'est bien Macky Sall élargir dem ay daaru taw feex mais c'est bien aussi li nga xam ne defar nañ ko ba pare il fii nga raax defar buntu joxe ko mu bàyyi ko fii léegi loolu lan lay jur vagabondage dañuy tux ay loo xamul ci biir euh, sàcc suñu doom yi di leen violer ci biir agressé la ci biir jaan ya foofu la ñu dëkk hmm. bi ma ko waxee ak euh, monsieur le maire DC daf ma ne amul benn problème dugalal leetre parce que xale yi dañ ko bëggoon a dagg ma ne leen bu leen ko dagg jaani da tuur suñu kaw léegi le maire ne amul benn problème dinañ ci jàpp ñu woowaa service d'hygiène ñu dindi ko daggaloo léegi pourquoi Macky Sall mënul ñëw jël 100 maisons yooyu jox ko ñi nga xamante ni yellool nañ ko loolu suñu koom la bon léegi message le dernier point Sénélec service de l'État la suñu xaalis mooy dem courant bi ñuy capp muy dem état bi naan dafa ñàkk xaalis ba pare di lijjanti entre moom Mali ay Mauritanie comment la ñuy def ba énergie bi yomb te ñun suñu énergie rek mënuñu ko lijjanti c'est déplorable. aywa léegi sa message loo jeexale Astou. sama message mooy euh, damay woo nit ñi ñu ñëw wéttali ñu ci club bi man wét naa ci trop le développement c'est pas se développer seul se développer c'est développer les autres. Hmm. man suñu kër amul xale ñii sama ay doom lañu yàlla moom ma natt ci xale damaa bëgg xale léegi nag xale yi buñ leen toppatoowee balaa ñuy am âge ado dinañu am ay nit ñu baax dans un environnement def nañu formation FENAPES avec madame le maire mii ñun dañuy dem di lijjanti ay information de pour ñëw tuur ko fii mais bu ñu ñëwee fii ñi ñu war a jàppale tamit dimbali wuñu di nelaw Tunkara du sotti. Euh, Assou Ndiaye lu. beneen point bi mooy waxtu bi jàppandi waxtu bi jàppandi la mais may ma rek je vais faire appel ñu ñëw bokk suñu club yi. ñaari club ñoo fi nekk jaxaay muy man les aigles da Dakar jaxaay ak les béliers donc nañu ñëw ci club yi parce que club yi dinañu lijjanti affaire garab problème insalubrité dinañu am yeneen service annexe ya nga xamante ni euh, na ci ñëw waaw waa jaaxaay yëpp waaw vraiment ñu ngi mën naa joxe sama adresse mail wala sama téléphone et appel aux partenaires am nga mail góor gi day amul adresse mail waaw man am naa adresse mail waaw yow yow léegi am nga adresse mail akh ndiaye 37 arroba gmail point com wala 77 650 33 41 damay woolee partenaire parce que ñii France la ñu nekk donc suñu ministère de l'environnement dinaa fa dem état warul bàyyi ay doomam ñeneen di leen jàppale ñun ñu toog di ñu seetaan. Ah, Tounkara état yi moo tëddee noonu. nag a da ngay foog ñu jàppale ñu tamit. aywa euh, ñu bàyyi leen léegi ak seen euh, jàngat bu njëkk si bés bi. mbokk yi sunu ñaareel jotaay Sénégal ca nam ñi fii ci plan Jaxaay plan Jaxaay moom euh, sanc la bu bees ndax juróom-ñetti at si gannaaw donc le président Wade dogaloon ne ñi nga xam ne dañoo. Euh, mbënn mi daleen leen jàppoon sonal leen ñu toxal leen indi leen fii ci euh, quartier bu gox bu bees bi euh, plan Jaxaay moom soriwul dara ndax boo jógee Ndakaar dugg si autoroute à péage bi Rufisque Ouest ngay duggee ngay génnee jël gauche rek yegg biir plan Jaxaay plan Jaxaay nag di fa nuyu waa 2 si yi fa nekk ñoom Seydou Sow Kaaw delloo ko njukkal ñu ngi si ànd te ñaareel jotaay bi ak Abdoulaye Diané Abdoulaye Diané moom moo jiitee ASC bu plan Jaxaay ànd si tamit ak euh, Babacar Touré Babacar Touré moom kuréel gi mu jiite fii mooy tudd agir à temps Babacar Touré di la nuyu di la dalal la ziar. ñu bu baax Tonka Abdoulaye Diané yow di la nuyu di la dalal la ziar. Tonka ñu ngi lay fay bu baax di fay waa 2STV. aywa yow nuyu aussi euh, mbokk téléspectateur yi. Abdoulaye Diané yow euh, ASC ASC plan Jaxaay depuis kañ la. ASC plan Jaxaay ñu ngi ko créé en avril 2008. Euh, maanaam daal bi ñu sancee gox bi. sancee gox bi. Euh, ASC bi yow depuis kañ nga ko jiite. maa ngi ko jiite aussi depuis avril 2008. juróom-ñaari at a ngi. en fait c' est ça. yéen alternance amul si amoon na en 2012 bi ñu jëkkee def euh, assemblée générale de renouvellement parce que les ASC ont ont une durée de mandat de quatre ans mandat olympique daal bi defee ñeenti at bu ñu renouveler amoon na président bu toogoon année 2012 yàlla dogal ci déwén mu mu mu mu delloo lenge ma jëlaat ko. lu tax dañ la falaat. 2012 dama nekkoon vice président mais xam nga doxalinu ASC. ka ko jiite woon gis ne peut-être euh, dafa war a delloowaat lenge parce que xëy na gisu ci boppam parce que aussi. Euh, yow da nga ko maanaam. le milieu ASC à ses réalités. da nga ko donnu daal. da nga deuxième mandat bi nga am. da nga ko donnu hérité voilà dam ko donnu mu ngoog. Euh, léegi Abdoulaye Diané yéen am ngeen palmarès ASC Pal Plan Jaxaay effectivement yàlla may ñu tuuti palmarès quand même. notre existence. gagné nañu benn finale en catégorie senior. gagné nañu aussi benn finale en catégorie cadette. en fait en 2010 finalu nañ senior. 2012 ñu jël euh, finale senior bi c'est-à-dire en 2010 dañu nekk équipe finaliste dañu finale ñu gagné ñu en 2010. kañ ngeen bi. ñu ngi ko gagné en 2012 en senior. daaw ñu gagné cadet en cadet. ngeen gagné cadet euh, léegi Abdou Aziz yow tey ban leeral yan leeral nga ko ci wàllu ASC bi nga xam ne nii moo tax ma toog fii bëggoon wax ne les ASC à l'image même du pays c'est vrai que fu ñu dem dañ naan association sportive et culturelle wàllu culture bi dafa xaw a nasax. nasaxul amul. am na. Ah. am na. am na def si wàllu culture. ci wàllum culture bi jaxaay démarré ñu gis ne des fois au niveau des ASC football bi day jël doole lool te bu ñu ñëwee ci gox bu mel ne fii jaxaay nga xam ne doole bi matul noonu loxo yi jotul digg gannaaw te nawetaan dafa diis ñu constituer benn troupe théâtrale à part boo xam ne un acteur culturel du nord de Talla Gueye jiite troupe théâtrale bàyyi si xel l'ASC l'a approcher travaille ak moom dugal ko comme étant le président de la commission culturelle Euh, troupe théâtrale boobu nan ngeen di liggéey ñoom est-ce que da leen jox subvention est-ce que subvention bi leen maire bi di jox yéen commune bi da leen leen si noo noonu di liggéey ñoom. bu fekkee ne subvention bi génn na tombeeg moo am ay compétition théâtrale ñu doon leen ci jël en charge mais comme li nga ko xamee ñu yor ay ASC xam ko lu ëpp ci subvention liquide xaalis boobu bu ñëwee ASC yi ci bëri presque dañ koy dugal ci ay bor lu ci ëpp. yéen euh, seen subvention ñaata la. ren ji jot nañ 400000 sur le plan liquide jot nañ ay jeu de maillot jot nañ godasse jot nañ ma euh, ballon chaque ASC dans la commune parce que l'ASC plan Jaxaay hmm. quelque unité ci Jaxaay la euh, léegi yow euh, yan leeral nga bëggoon indi voilà donc culture boobu nga xam ne dañ ko dañ ko dañ ko nasaxal la ñu bëggoon tout simplement que les ASC notamment ASC bi ma jiitee am d'autres orientations notamment dans une commune comme Jaxaay ñu orienté wu plus vers le développement. waaw ah, mais loolu tamit Abdou Aziz Diagne doo toog fii di ko wax yow. da nga koy def parce que tey. yow loolu lan nga ci def dañ ko jéem dañ ko jéem essayé nañ. est-ce que am ngeen yéen est-ce que yéen tey am ngeen plan boo xam ne si wàllu culture ak wàllu développement yéen ASC bi da ngeen koy dérouler. ñu ngi ciy jéem. c'est-à-dire ah. sur le plan culture comme li ma la wax. y a des troupes théâtrales qui se sont formées. non loolu wax nga ko pare on les a approchés pour liggéey ak ñoom. waaw loolu wax nga ko pare li ma wax mooy. sur le plan culturel. waaw sur le plan développement. est-ce que am ngeen yéen plan boo xam ne da ngeen koy développer da koy dérouler en tant que ASC. sur le plan développement xam nga boo nee développement da wax koom muy économie on a essayé tant bien même que mal emploi jeune boobu ñu essayé ci dugg. travaillé nañ ak lu mel ne ENDA Ecopole sur le plan euh, lutte contre le bu nga xam ne tey des jeunes on été des relais relais yooyu lu mu bon bon am na lu ñu indi ci ci sur le plan sensibilisation en fait le programme était préétabli chaque programme dañ doon dugal par trois à ce jour nous avons neuf relais au sein de l'ASC yu nga xam ne liggéey nañ ci programme boobu mais programme bi nag emploi daal yéen créé ngeen neuf emplois daal mën nañu wax loolu mais malheureusement c'est des emplois temporaires euh, donc wàllu culture ay approché ngeen benn troupe théâtrale wàllu emploi ay sax euh, finalement finalement ay troupe théâtrale ay troupe bon à ce jour nous sommes à deux deux troupes théâtrales bu Talla Gueye bi ak bu Ibou Dieng bi. ok léegi euh, ñooñu mais ñooñu amuñu amuñu budget moom boo leen di jox. non bu fekk euh, c'est-à-dire ñooñu ni ñu ñoom mooy ren en rapport avec la mairie mairie bi am na ci ñu mu compal subvention leen. ñaata leen jox. ñoom daf leen jox ku ci nekk troupe théâtrale bu ci nekk soixante quinze mille si jeune no cinquante mille astafurlah. cinquante mille pour euh, troupe théâtrale maanaam daal culture bi yëpp culture ASC. cinquante mille lañ si def fukki junni xam nga loolu tamit euh, xeetu sabotage la rek parce que loolu maanaam melentaan sax cinquante mille yooyu rayu ko. néew na lool mais nañ jàpp ne toute chose a en commencement tàmbali la rek dina mën a dina mën a yokk ba yegg ci yenn somme yi loolu lañ yaakaar. très ture euh, Bakar Touré yéen agir à temps lu mu doon. Tunkara balaa may tàmbali nga may ma ma. nuyu d'abord. non non non mayuma la <laughs> nuyoo moom euh, nuyoo nga ba ñu fay la ba ba nga léegi yéen depuis kañ la agir à temps. donc euh, balaa su nekkee ne mayuloo ma loolu yaakaar naa ne di ma may ma présenter mouvement bi pour nga mën a. mën a kañ la présentation bi lañ nekk. c' était le 1er septembre 2015. 2015 léegi yow euh, boobu ba léegi yow yaa ko jiite. waaw je suis le coordonnateur. ñaata nit ñoo si bokk. pour l' instant on est au nombre de treize personnes. fukk ak ñett. fukk ak ñetti nit. kenn ku nekk am na carte de membre. Euh, waaw kenn ku nekk am na. carte de membre kenn ku nekk day cotiser. voilà kenn ku nekk dafay cotiser donc carte de membre yi moom moo ñuy servir de. cotisation ñaata la. donc pour l' instant suñu cotisation 1000 francs lañ koy def. ñaar téeméer à base de t-shirt. léegi euh, euh. lan moo leen tax a jóg yéen agir à temps. agir à temps dafa jóg pour instaurer solidarité ak égalité. ci gox bi nga xamante ne nii moom la ñu dëkk. solidarité mooy jàppalante égalité mooy yemamaay yemoo. waaw solidarité moom mooy fexe ba maanaam ku nekk li nga am nga fexe ba sa morom maanaam sa dëkkandoo cof si at tuut égalité moom mooy maanaam ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi di gis seen bopp maanaam kenn ku nekk ni nga nekkee. Euh, léegi si wàllu solidarité léegi lan lan ngeen defagum yéen loo xam ni mi ngi jëmmal loolu ngeen bëgg. waaw waaw xam nga comme mouvement aussi mouvement Agir à temps dafa am programme bi nga xamante ne ni moom lay doxee pour l'instant alors ci programme bi nag am na ci benn partie bi nga xamante ne ni partie euh, éducative ci partie éducative boobu euh, comme nous venons tout juste de naître début septembre def nañ benn liggéey bu xamante ne ni ci xale yi nga xamante ne ni maanaam dañoo war a dal daara. maanaam dal daara damaa wax ci olof moom mooy xale yi nga xamante ni CI la ñu war a def pour l' année scolaire 2015 2016. loolu loolu loolu leen defal xale yooyu. alors comme euh, pour l' instant sunu membres yu bëreegul te am naa yaakaar ne bu ñu génnee ci émission bi ñi dëkk Jaxaay dinañ daw si euh, maanaam ñi dëkk ci commune bi dinañ daw si ñëw ci euh, mouvement bi ndax li ko tax a jóg moom mooy solidarité ak égalité ci loolu unité 17. moom lañ jot a travaillé lagum. lan ngeen def pour xale yi sëy yi. donc dañu dugg ci kër yi nga xamante ne ni moom moo nekk unité 17 ñu def recensement kër par kër benn par benn xale bu nekk boo xamante ne ni dafa war a dugg école ci année scolaire 2015 2016 ñu jël sa tour quelles que soient les conditions à savoir su nekkee ne tu es à la limite d'âge on su nekkee ne euh, da nga am problème mu papier on su nekkee ne tu dans les normales aussi on te prend sur cela ñu am benn résultat de 122 élèves au niveau de l'unité 17 qui représente un échantillon au niveau de la commune parmi ces 122 élèves mm -hmm. ces 122 enfants j'ai pas encore le droit de dire élèves pourquoi je m'explique ci 122 élèves yooyu Tunkara xam nga ñaata lañ ci parvenir à inscrire ah. c'est au nombre de 17 fukk ak juróom-ñaar. 17 élèves ci téeméer ñaar fukk ak euh, ñaar. pourquoi cela alors ya y a euh, ma sœur qui vient de dire euh, Astou que ni Jaxaay il y a et quelques habitants le chef de quartier aussi vient d'énumérer qu'on a huit quartiers waxul 6000 de 41000 la wax. 41000 ah 41000 euh, habitants et huit quartiers je pense pour la commune hein? alors sur cela moi je viens de compter quatre écoles qui sont très bien structurées. Je pièce bien mes mots. Quatre établissement scolaires élémentaires qui sont très bien structurés. Abaaka ah, mënoo wax wolof yow. ah waaw. yow tubaab nga gën a dégg wolof. déedéet déedéet. ah wolof wolof laa gën a dégg ko tubaab. waaw léegi bi ñu jógee ci loolu école 17 moom mi nga xamante ni moo nekk unité 17 lañ doon liggéeyal bi ñuy liggéey ak ñoom ba toll ci maanaam. ah non Bakar affaire xoolal. la da ngay da ngay wax affaire bu xaw a kii. ma synthétiser. li ma bëgg wax mooy yaa ngeen yéen jot ngeen lim. waaw téeméeri xale ak ñaar fukk ak ñaar. maanaam difficulté yi ñu jànkanteel la waaye wax parce que dafa fukk ak juróom ñaar rek. ngeen euh, jot a fexe ba ñu dal école. Mhm. loolu lan moo ko waral. waaw moom lay expliqué nag. waaw explication bi dafa xaw xam nga lan moo tax explication bi difficile. parce que euh, complexité bi nga xamante ne nii Tunkara moo nekk jaxaay maanaam problème mu jaxaay dafa nekk loo xamante ni dañ ko jël simplement alors que ce non non non non non non là j'insiste ce n'est pas simple li nekk jaxaay li ñuy dund nii momentanément je peux dire que c'est une exclusion dañu ñëw maanaam beddi ci gox bi. ku leen beddi. maanaam autorités yi nga xamante ne nii tey ñoom ñoo nekk fii toog fii je peux dire particulièrement le président de la République Macky Sall parce que tey bu demee ba nga xamante ne nii mi ngi créer yeneen euh, dëkkuwaay. te ñun jaxaay ñu ngi dund ay difficultés yu nga xamante ni c'est incommensurable kenn mënu ko natt maanaam. ci lu mel ni maanaam euh, maanaam ci lu mel ni toog di jooy ay difficultés. waaw léegi dañuy ñëw ci li ñu def. ñeenti école moo fi nekk. premier école bi Tunkara bi ñu fa demee cinquante 151 inscrits dont deux classes. déficit d'infrastructure maanaam amuñu ay tabax yu mën a dëkkandu sunu ay élèves. waa léegi fukk ak juróom-ñaar yooyu ngeen bind. Mhm. si ñaar si téeméer ak ñaar fukk ñaar lu tax. loolu leeraloo ko. mani la gox bi nga xamante ne ni moom lañ nekk ñeenti école yoo xamante ne ni ñoo mën a dëkkandu ñoo fi nekkagum à part des abris provisoires yi nga xamante ne dinaa si ñëw parce que unité 21 euh, de passage il faut ma passé ko pour autorité yi aussi bàyyi ci xel parce que ña fa dëkk ñoom ñoo décarcassé wu Tunkara ba jël kër. maanaam xale yi di dugg si di jàngi pour te dire que ne effectif bu pléthorique bi ëpp na si ñun. waaw léegi kon problème d' infrastructure moo tax xale yooyu ñoo jàngi. xale yi bëgg nañ jàngi. bu baax waaye amuñu fu ñu mën a jàngi amuñu fu ñu dem jàngi jee. fii si jaxaay fii nii ci jaxaay ah, te loolu noonu Tunkara yamuñu set rek di ci di ci jooy de. Hmm. waaye dañuy takk takk suñu ceinture on va ajouter un dañuy yokk benn bën-bën ci ceinture bi xëcc ko ba mu dang xam nga nu ñuy def. maanaam dañuy jóg jàkkaarloog ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ŋànk dëkk bi te ñun ñu nekk ay citoyen waa loolu commune bi waa commission éducation xam nañ ko. commission éducation suite à cela dama organiser benn cadre cadre de concertation générale pour léducation éducation euh, boobu mi ngi amoon le 21 octobre. ñoom xam nañ ko yëg nañ loolu. j'avais invité le pré la présidente madame kulibali que je salue de passage elle était là et puis depuis lors aussi ñi ngi continuer man ak di ci liggéey. parce que am nañ benn résultat am seen liggéey boobu. pour l' instant donc juste dañu war a gis maire si côté gis maire. amagu résultat mais léegi Bakar mhm. yow pour yow loolu yëpp lan mooy saafara si. xam nga lan mooy saafara si Tunkara ñu def benn gestion participative et inclusive. boo xamante ni ñu boole euh, ñiy dëkk si gox bi yëpp ñu boole leen si ni ñuy yoree mm, gox bi. très bien léegi ci loolu. nag ñu ngi ciy def ay maanaam ñun du ñu xaar ñu boole ñu Tunkara. waaye léegi yow da nga jàpp ne que gox bi ni ko yore commune bi ni mu ko yoree boolewu si non là là on n'en disconvient pas parce que l'équipe municipale qui est là présent hein, hmm, n'est pas du tout compétente xamuñ dara non du tout pourquoi pourquoi parce que une équipe qui est vraiment dirigée par un analphabète non maire bi mënul bind mënul lire je suis désolé là je veux même pas en avancer bëgguma ci sori Tunkara non damay laaj maire mënul bind mënul bind mënul lire xamul dara c'est son euh, je peux que ne man ki ma ko wax ki nga xamante ne nii daf ma ko certifié bi ma ko waxee sama fit bi daf ne rëf xam nga lan moo tax ma ne sama fit bi ne rëf hmm? kooku maanaam mun nañu wax ne moom mooy conseiller juridique kon maanaam waxantu wuuma moom conseiller juridique bi nee na maire bi munul bind munul liir. ba ñu naroon ci def pétition te xoolal bu nekkee ne. gis nga li nga xam ne loolu loi bi da koo tere. bien sûr ñu ngi ci ay procédures procédures yi jeexagul. maire bi fu mu bien sûr APR la bokk tudd nga euh, moo bi voilà léegi sur cela Tunkara may ma tuuti ma wax maanaam mouvement Agir à temps dafa nekk mouvement boo xamante ni dafa jóg tegu ci ay raay yoo xamante ne nii waxuma maire bi commune bi mais la Sénégal képp ki nga xamante ne nii da nga fi ŋànk lenn te pare woo pour doxal ko dinañu dal sa kaw. est-ce que xale yam jam ñoom Babacar Touré ñii nee nañ euh, képp koo xam ne yow ŋànk nga fi dara te loolu yaay yelloo ko ñoom dañ fexe defante kook yow ba nga abal ñu suñu réew ñu yor ko euh, yor bi gën. président Abdoulaye Diané lan mooy sa message looy jeexalee. bon lu may jeexalee mooy def quelque quelques plaidoyers au nom de près toutes les ASC de la commune parce que ASC plan Jaxaay rek du fi ASC. ñaata ASC ñoo fi fii au niveau de la commune ren am nañ huit ASC parce que ay quartiers yu bees la ASC dañuy juddu. bu muy démarré gis nga ASC plan Jaxaay la woon mais à l'heure où je parle biir Jaxaay rek ya cinq ASC. yow léegi ban plaidoyer ngay def. plaidoyer sur le plan infrastructure sportive maanaam fu ñuy tàggatoo. am ngeen. saa di dire fii ci commune bi amul terrain. foo leen di ci terrain vague waaye amul stade municipal. pour vous expliquer tey bu ñuy jouer nawetaan xam nga dañu bokk ci benn zone bu ñuy tuddee zone onze. bu ODCAV bu Rufisque. zone boobu ñaari commune ñoo ko sekk commune bu Jaxaay parcelle Niakoulrab ak commune Tivaouane Peulh Niaga waaye ci ñaari commune yëpp. amuñu fa terrain fonctionnel bu ñuy jouer nawetaan. kon di jouer. dañuy jóge fii dem ba Sangalkam. Sangalkam mu am terrain sori na de <laughs> te aspect boobu bokk na ci li gën a nasaxal ASC yi fii. léegi yéen boo leen di entraîner dañ dem si benn. terrain vague comme ñi nga gis nii ñuy entraîner ci terrain vague bi. waaw donc plaidoyer bi may def daanaka banlieue bi yëpp la xam nga banlieue bi amul infrastructure. mais comme que yàlla def na nous sommes de de de ay quartiers yu bees lañ espace des na fi. en tout cas am na lu fi des loo xam ne tey ak tuuti organisation en appel avec des partenaires commune bi bu jógee ñun ñu jàpp ci loolu terrain war na mën ASC yéen jël leen dossier boobu ngeen dox ko parce que boo leen xaaree tamit commune yeeg état yeeg yooyu boo leen moytul dina yàgg doon gis dara de. mais dans la commune aussi munoo tëb say kilifa du tere ñun idée bi ñu gisoon mooy fii au sein de cette commune du tere zone moom mooy suñu kilifa ñu def benn collectif des ASC collectif boobu ñu ngi ci di ko togg bu ñoree ñu dem toog ak maire bi Oh, euh, maanaam woo partenaires yi parce que terrain municipal dafa diis. commune kese attunu ko. waaye nag moo war a jiitu. loolu wér la bu am ñun dañ ko ciy wax. loolu euh, dafa am solo kooku sur le plan infrastructure culturelle la. feneen fi may waxee aussi mooy renouvellement ASC yi c'est-à-dire xam nga chaque année 2012 euh, lañu mujj renouveler ASC yi 2016 déwén dañuy renouveler ASC bu fekkee ne on cave nangu na ko mais même bu renouvellement amul dañuy def réaménagement. waaw maanaam joint tuuti. ndax da nga gis benn jaane yor benn poste liggéeyul nga gis benn tunkara moom moo yor keesu trésorier dem na ak moom kon réaménagement mënul ñàkk kon damay lancer benn mot ici au niveau des AS de la commune maanaam yenn yenn yenn nit ñi nga xam ne am nañ ay potentiel am nañ am am nañ lu ñu mën am nañ lu ñu capable am nañ tuuti koom xam nañ lii wala jàng nañ alxuraan wala jàng nañ français ngir yàlla nañuy ñëw di dugg ci ASC e ndax ASC yi levier de développement la. mais ASC yi de développement la mais kenn utiliser wu leen pour développer. c'est ça le problème yënguwuñu si culture. yënguwuñu ci culture développement li ñuy yëngu rek mooy euh, football ak euh, xumbal ñaar yooyu moom moo leen yitteel te loolu président vraiment war nañ ci bay waar parce que ay yi énergie bi fa nekk. Mhm. vraiment war nañ ko utiliser à bon escient. mais loolu lépp organisation la. xam nga boo bàyyee ASC ci koñ. ñi euh, n'importe ñëw bëgg nekk dirigeant. alors que day am ñoo xam ne ils sont capables ñi ngi ci biir koñ bi mais xëy na peut-être par manque ah, temps parce que ku nekk ak sa raison. mais yow tey en tant que président tey c'est avec de bons chevaux qu'on gagne course. je suis d'accord mais en tant que président tey yow. waroon nga mm. ñëw war ñu sa plan pour développement war ñu sa plan pour culture. mais yéen amu leen loolu sur le plan culturel wax la. ne la liggéey nañ tey ak ay troupes théâtrales. sur le plan culturel bu ñu xoolee xool ba xam ne dafa nasax ñu def benn investigation gis na jeunes yi lu mel ne Oscar des leen ñor dañu dajale tous les acteurs culturels de la commune. deux ans yëpp ñi ngi bokk ci Oscar des vacance bi nga xam ne nii tey. Euh, acteur culturel commune bi yëpp ñoo ci engagé. sous la coupole de l'ASC plan Jaxaay. oui mais ASC yi tey xam nga euh, nawetaan bi dafa dem ba. dafa euh, nangu lu bëri ci ASC yi. waaw nawetaan bi vraiment dafa ni muy doxee nii daal ñun Sénégal ñun ñëppay perte parce que énergie yu bëri ñoo fi nekk ay jeunes fa nekk am nañ doole am nañ xel am nañ kàttan mais tey kenn utilisé wu leen pour développement kenn wu leen pour culture. Euh, football football football ak xumbal. xanaa xamoo looloo tax Tunkara euh, ONCAV wax ne dafay lancer beneen nouvelle euh, nouvelle génération ASC boo xoolee am na ASC yoo xam ne tuddatuñu ASC ASEC association sportive économique et culturelle. ASEC ASEC. pour mën a am tuuti développement. ASEC e d'Abidjan waa sunu mbokku Abidjan yëpp. ñu ngi leen di ASEC boobu commencé nañ commencé nañ di dugg ndànk-ndànk. aywa lan mooy sa message loo jeexalee Ba ko waaw message bi may jeexalee moom mooy le 9 novembre passé. FMI dafa classé Sénégal ci vingt cinq pays les plus pauvres de la planète. waaw kon je pense que il est temps d' agir. maanaam ñu taxaw takk ndig yi commencé liggéey bi. Euh, ci loolu nag Tunkara dama bëggoon nga may ma ma jàllale suma programme bi nga xamante ni moom laa compté euh, déroulé pour l' ne scolaire. non mais loolu xam nga loolu loolu c' est interne. da nga ñuy jox benn message boo xam ni. maanaam ci message bi fi mu toll nii ñu ngi toll ci phase euh, dimbale xale yi nga xamante ne nii ñoom ñoo xaw a seen loxo jotul seen ginnaaw. pour ñu mën a am ay fourniture xam nga ne fourniture du weesu si loolu Tunkara yow euh, laaj nañ ci sa participation. waaw damay joxe ku ci mel ni Sédima mi nga xamante ne ni moom la ñu dëkkal aussi laaj nañ ci participation am ñu ngi woo fondation Sonatel pour ñu ñëw fexe ba nga xamante ne ni gox bi nga xamante ne ni jaxaay la et puis aussi c'est un hub bi nga xamante ne mën na nekk hub commercial euh, pour le Dakar vraiment ñu teel a jëmbat. loolu mooy message bi képp koo xam ne euh, message bu solo Bakar Touré képp koo xam ne yow. da nga bëgg tamit indi sa bay sa waar si wàllum fourniture si fii si plan Jaxaay si école bi ak ñoom agir à temps bu Babacar euh, Touré bii jiite euh, ñu ngi lay woo yow tamit nga ñëw euh, lépp loo xam ne mën nga ko def si wàllu fourniture pour xale yi jàng jàng bu bu baax loolu moom képp ku ko def suñu borom moom moo lay fay. mbokk yi tey sunu jotaay Sénégal ca kanam ñu ngi ko amal fii ci plan Jaxaay plan Jaxaay si commune bu Jaxaay parcelle ak euh, ñàkkul rab euh, jotaay bi mujj ñu ngi si ànd ak euh, soxna si di Marème Bari Coulibaly Marème Bari Coulibaly moom mi ngi bokk fii ci commune bi moom moo jiite commission bi nga xam ne ñu ngi yëngu si wàllum jàng ak jàngale muy éducation ànd si tamit Issa Camara Issa kamara moom comité de santé bu plan Jaxaay bi moom euh, kilifa la fa moom moo fay vice président Marème Coulibaly euh, la nuyu la daal la Marème Bari Coulibaly foog ñu si Bari bi la nuyu la daal la ziar. merci beaucoup Tunkara man ma lay delloo nuyoo di la gërëm di la sant. aywa issaa yow di la nuyu la daal la ziar. Tunkara ñoo ngi lay delloo nuyoo. Issa comité de santé bi yow loo fay def. donc euh, ci comité de santé bi man maay vice président bi. bon comité de santé bi lu ko moom si lu muy yëngu. donc euh, xam nga nguur dafa delloo santé population donc moo tax ñuy créer ay comité de santé poste santé bu nekk donc comité boobu moom mooy yor wàllum euh, euh, defar bi wàllum organisation bi ak lépp luy dem ci li tax poste de santé bi di mën a dox. maanaam daal poste de santé bi yéen yaa ngi koy doxal daal. ci gàttal ñoo koy doxal yaa yaa ngi koy téye yaa ngi koy doxal. waaw léegi eh, poste de santé bi moom liggéey bi ndax jàppandi na. waaw jàppandi jàppandiwut. Euh, parce que am nañ euh, benn infirmier bu ñu fi euh, affecté ak benn sage-femme bu fi nekk mais boo xoolee. popular ñaar ñooñu rek ñoo fi nekk. ñaar ñooñu ñoo fi nekk. loolu na comme ñu ñu lu ñu état envoyé. loolu na donc doyut. parce que sànq ba léegi yéen am waaw am na ay. matron yu ñëw yu jàppale sage-femme bi am na ay ASC agent de santé communautaire yu jàppale infirmier bi. ak euh, bàjjanu gox am na. bàjjanu gox ak relais yi ñoom ñëpp ñoo ngi ciy intervenir ci ci. Euh, léegi yéen lan ngeen xalaat lañ lañ war a def ngir liggéey bi gën a baax. waaw Tunkara soo gisee population bi ñu lay wax bu jaxaay donc nekk na population boo xam ne poste de santé attanatu ko donc euh, poste de santé ci norme yi. Euh, dix mille habitants ñoo war a am poste de ah, santé. fii de am na lu quarante mille. donc euh, gis nga kon euh, vraiment poste de santé bi attanutul vraiment population bi fi nekk. Ah. te aussi tamit gis nga ne affaire bi fii dafa xaw xëcc. pour nga déplacer malade. di ko yóbbu en plus poste de santé bi amul ambulance. Hmm. donc suñu amee malade vraiment day métti condition yi. waa léegi yéen waa comité de santé bi mun leen woo population yi ñu cotiser pour jënd ambulance. waaw population moom dañ leen di remercier vraiment may remercier aussi. Euh, comité euh, waa membre yeneen membre yi parce que quatre lañ président trésorière ak euh, trésorière adjointe quatre personnes lañ mais population bi ñu ngi jàpp ci post bi parce que lu tax ñu ngi ciy jàpp am na année boo xam ne miir bi dafa gàtt donc dañu faire appel dañu woo chef de quartier yi ñoom ñu dugg ci seen unité yi chef de quartier bu nekk dajale li nga am nga indi ko. mur bi ñaar moo ko doon defar. donc mur bi à bon jàpp ma yi. parce que boobu euh, avant ñun ñuy intégré pour defar miir ay ñaari junni la nag yow tamit nag Issa Camara loolu du dara man lu mel ni euh, ambulance laa la wax ko population ñu woole ne leen quarante mille personnes kenn ku nekk bu joxee mille francs ñu am léegi ambulance waaw xam nga gestion participative am na ñoo xam ne xamuñu loolu waaw mais dañ leen koy xamal éducation la. Euh, dañ ko xamul mais euh, euh, population bi vraiment ñu ngi ñu ngi. non non yow yaa ngi raay population. non population bi parce que li ñu participer mooy benn miiru ñaari junni loolu tamit doyut parce que wér gu yaram moom amul njëkk. mais nag Tunkara population wér gu yaram ki ci war a ñëkk intervenir mooy yaakaar naa ñi ñi ñu jiite. bu fekkee ñoom defuñu li ñu war ñun population yi ñu jéem li ñu mën parce que affaire bi ñun ñooy feebar de. ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite ñoom dëkkuñu jaxaay te bu ñu feebaree ñoom dañuy taali avion dem tugal faju kon ñun ñoo war a jël affaire bi en charge. léegi foofu par exemple comme suñu état yónnee benn infirmier ak benn sage-femme donc comité bi mooy arrangé wu wut ay ASC wut ay matrone ñu koy jàppale mais comité boobu en revanche ndax population bi ñoo ñëw di dagg seen ticket xaalis boobu la ñuy ah, organiser ba mais loolu population bi su feebaree. man dama population bi def. Euh, contribution volontaire pour régler par exemple problème ambulance tey ñu ne euh, une un habitant de Jaxaay mille francs pour euh, pour ambulance parce que tamit fii bañ am ambulance loolu njaaxum la. loolu njaaxum nit dina dee parce que ambulance amul te bakkanu nit lan moo ko mën a jënd. amul lenn amul donc nag nit ñi nañ ñëw xam ne que tey. Euh, dafa am manque manque boo xam ne am na ñun ñëpp constaté nañ ko état bi waroon na taxaw taxawul mhm. commune bi waroon na taxaw taxawul mais ñun population yi ñu jéemal suñu bopp am na yoo xam ni dañ si war a bay waar mooy ay affaire ampoule làmp yi dangay ñëw benn gox ñu ne la làmp bi dafa coupé làmp bi dafa brûlé ñu ngi xaar Senelec ñu ngi xaar commune bi pour wax la ne maternité sax amul euh, groupe tey bu femme di accoucher ba courant coupé dañuy mujj daw di dem de gauche ba récemment le bi lijjanti ay euh, lampe yoo xam ne bu courant coupé moom la. waaw waaw léegi tamit comité bi nan ngeen di sàgganee ba groupe amu fi. doo leen ut pexe pour group ñëw. non Tounkara mooy li ma la wax xam nga ak. Euh, tërëlin bu bees bi waaw non dama lay expliquer ak tërëlin bu bees bi. xam nga suñ la waxee poste de santé bu jaxaay euh, mairie bi fi nekk dugalu fii un franc. Hmm? un franc amul benn subvention amul benn subvention du un franc bu ñu fi dugal loolu tamit dafa xaw a doy waar. na waar. vraiment dafa doy waar. waaw moo tax comité bi tamit. wara a imaginatif war a inventif ut ay pexe parce que ko amul yaay tamit. donc euh, xam nga comité dafa dafa jël ay euh, père de famille ak mère de famille euh, mobiliser leen ci post bi ñu fiy xëy suba ba ngoon am ñu fa am ne ñoo fiy fanaan parce que ticket bu ñu koy dagg ticket ñaara ngay dagg. 500 francs xam nga loolu du dara. waaw mais mais mais gis nga li nekk ñàkk dara lool loolu la comité di jongale. pour ñi nga xam ne ñoo fa nekk. bu fenn mois jotee ñu mun leen fay donc groupe bi ñoo ngi ci parce que comité aussi day chercher ay partenaires. groupe bi jar. donc groupe sans dépend ci aussi tamit. bi nga groupe bi nga soxla est-ce que dem ngeen ut devis xool groupe ñaata lay jar. bon pour l'instant non non. ah non non da ngeen liggéey il faut vous dégourdir ngeen jóg dem toppatoo affaire yi indi kayit yi ne lii lañ soxla population kan moo ko mën a tey boo ñëwoon yow nga am sa devis ah ne dañu soxla groupe bu jar 4 millions. ana kan fii jaxaay moo ko mën a ñëw génne def ngir yàlla. du ñàkk léegi léegi Tunkara soo defee loolu je pense que ne dina di nga dem ba teg population bi lu métti. non non yow boo naree def 1000 francs 1000 francs jënd ambulance. defaat 1000 francs jënd groupe. mais wér gu yaram amul njëg. Issa Camara wallaay wer gu yaram amul njëg. loolu moom dëgg lool loolu du dara de ay 1000 francs ay tey yàlla mën na def tey nga toogoon fii ne ñun def nañ suñu plan pour am euh, euh, suñu budget pour euh, groupe. 4 millions lañ soxla léegi kenn ñëw woote na 4 millions ngi nii jënd leen groupe pour maternité. loolu dara vraiment vu euh, nombre de population bi fi nekk. soxla nañ groupe soxla nañ ambulance. waa loolu tam foo ngeen bay si waar maanaam boo fi jógee tey da ngay defar dem nga defar sa budget xool loolu ñaata la soxla commencé ñëw fëgg bunt yi nga ñëw ñu liggéeyandoo si léegi dem indi benn groupe ñëw teg ko si poste la. waaw loolu Tunkara dinaa ko def dinañ ko def ñëw ba sa bureau. aywa eh, eh, indil la ko incha allah yow ñoo benn mbuus ma ak yow <laughs> soxna si. di la ziar yow euh, maire ba loo fay liggéey. Tounkara mënuma commencer d'abord pour nuyu ma sama président son excellence Macky Sall. que. parce que ak monsieur le maire. ah nuyul soxnaam tamit nuyul soxnaam dama koy nuy maa ngi ciy ñëw waaye damay commencé. cër bi nuyul ay doomam. ci góor ñun ñëpp laay nuyu sax ak famille affaire bi yëpp. président am na xaj. parce que tey ñu demee tey ba toog fii. <laughs> dañ ko koy gërëme parce que ku ne xam na ni commune Jaxaay bii eh. injustice bi fi amoon ba ñu tegoon fi délégation spéciale eh. mu ñëw réhabilité ñu dans nos ba tey jii ñu toog fii am commune bon yow APR nga bokk kon mënuñu toog ba waa bu saf sap bon euh, APR day saf sap <laughs> waaw aywa léegi euh, yow commune ba loo fay liggéey man maa yore commission éducation alphabétisation ak langue nationale. conseillère nga. waaw conseillère la maanaam dañ la fal. waaw ba pare nga yor alpha yu kii. bon léegi commission boobu. dégg nga ko fii ah nee nañ jàng jàngale bi fii baaxul. parce que xale yi dañ leen bëgg dalal sax duñ leen mën a dalal mais yéen itam mm. loolu noonu ni sàggane ba mu am. Euh, posé nga ma question bu ma neex parce que dama nekk conseillère ñu jox ma commission éducation muy loo xam ne sama domaine la. mu neex ma waaw may mu neex ma trop. parce que def naa ko def xam nga li ci nekk. mais comme ni ma ko mën a waxee peut-être xëy na nee nañu commune bi lu bare doxul mais dama naan éducation foofu moom il faut ñu taxaw te defe naa ñi fi toog du kenn koo xam ne mën na ma démentir ci loolu. parce que même bu fekkee peut-être ni am na yoo xam monsieur le maire motale wu ko dama naan éducation kenn sañu koo wax. Hmm. ndax lu tax ma wax loolu mooy. ah xale yi bëgg jàngi mënuñ jàngi nag. waa maa ngi ñëw donc moo tax may la posé nga ma question bu ma neex parce que bi ñuy soog a ñëw ñun ñu ngi soog a def un an mois ci commune boo xam ni tonton Diak wax na ko chef de quartier bi amuñu benn ressource wax na la injustice yi fi am sédiment bi jël nañ ko fi la bokkoon kunun bi war nañ ci mën a am parce que bu ñu wax impact environnemental bi am. Ah, defe naa jaxaay ñoo koy subir ah, tey problème bu fa amoon tey ji ñun ñoo koy subir kon defe naa Mbambilor gi nga xam ne plus de 10 kilomètres booy xool ñun ñu nekk presque ay 2 kilomètres ñun ñoo waroon jël xaalis boobu wala ñu jox ñu ci cër mais defe naa xam ne jaxaay ressource boobu la waroon a am pour doxal bi lépp dem kon injustice boobu dama ciy profité di ko décrier comme ñoom ñii. di lancer appel aussi président pour ñu xoolaat découpage bi. Ah, parce que ñu ngi ciy dox. ah yéen nag xam nga tamit man waa APR yi xam nga lu tax ànduma ak. waaw may ma may ma ma ñëw parce que duggaguma ci commission euh, question bi nga ma posé. ñuy lancer appel président parce que loolu defe naa fi mu toll moom rek moo ci mën a taxaw. waaw léegi wax ne waa appel yéen yaa leen nekk leen waaw ñi ngi ñi ngi ci donc problème boo xam ne ñi ci mi ngi soog a jóg la ñu ngi ciy taxaw te xam naa ne président dina ko régler ndax ni mu fexe jaxaay bientôt kañ parce que président lu dugg ci noppam jeex na ah, lettre bi dem na du yàgg léegi léegi boo fi ñëwaatee defe naa yow mii da ngay politique de <laughs> non politique ma sax mais dëgg bu taxawee dañ <laughs> waa léegi yow Marème euh, Marème euh, fu mu toll nii lu tax ay xale bëgg jàngi mënuñu jàngi si commune bi loolu laa la wax man loolu xam nga même bu ma nekkoon conseil municipal sax tey ñu jox ma lii man loolu du ma ko seetaan parce que euh, naturellement enseignant bëggul injustice moo tax may la loolu ñun bi ñu ñëwee fekk nañ fi euh, huit écoles huit écoles yoo xam ne jaxaay ku ne xam ne ko fi defee amul benn mesure d' ah, que bu jaaroon yoon tey ji jaxaay plus de huit écoles dina fi nekk hmm. ndax ku ne xam ne jaxaay population bi ah dafa dafa macha allah dafa dafa bëri donc du huit écoles la ñu waroon toll comme ni ma la ko ñun un an six mois lañ fi amuñu benn ressource kon daal yéen léegi yi nga xam lu mel na parcelle bi nu ñëwee am na école yoo xam à deux classes lañ fa fekk bi nu voté budget defe naa ku fa dem tey jii tabax ba jug na ñu tabax na ñu nga fa yëkkati deux classes unité 5. yéen yaa leen ko def ñun ñoo ko def. unité 23 aussi même chose même stade. yéen seen commission éducation euh, may ma ma ñëw may ma ma ñëw. may ma ma ñëw. parcelle unité 5 boobu ma lay wax abri dafa nekkoon abri nawet bi daaneel ko bi ko monsieur le maire yëgee da leen jox ciment. ñu yëkkati ko may gërëm au passage aussi population parcelle parce que comme ni ko waxee ñoom gestion participative bi ñuy wax ñoom xam nañ ko bon léegi ndax xaaruñu population bi dugal nañ ci seen xaalis unité 21 aussi bi bi bi ma daaneel unité 21 aussi ma daaneel bi Babacar wax sànq hmm. unité ñoom bi ñu ñëwee man ñu wax ma ko en tant que président commission éducation defe naa man maire jour bi ñuy def euh, pause première période bi maire ma fa j'ai les avec moi defe naa moom moo jëkk a ma gas ñu teg comme maire bi mu ñëwee indi ciment jàppale leen ñu yëkkati ba mu kawee ba ñu war a teg defe naa adduwaas maire ñëw leen lii dafa gàtt day tàng ci xale yi dolliwaat leen ciment ñu yëkkati ko ba léegi seenaaj lan toll defe naa am na ñu fi toog ñoo xam ne ils peuvent ma témoigner. très bien léegi parce que man lu may wax fu leer laa koy teg. Marème euh, léegi yéen seen euh, commission éducation si budget wu euh, commune bi. ñaata ngeen si am. ñun am nañ ci amoon nañ ci am nañ ci huit million huit millions budget commune bi ñaata la. huit cent quatre-vingts million huit cent quatre vingt millions. waaw yéen ngeen am si huit millions. mais budget prévisionnel la du loo xam dafa nekk ci kees yi. mais même loolu yéen prévisionnel tamit mun nañ leen xam nga huit huit millions. waaw de huit cent quatre xam nga ñaata. waaw loolu de un pour cent la. dañ koy wuti rek. un pour cent dañ bu ma la waxee loolu côté petit investissement. am loolu matul un pour cent sax. ah moom laa la wax côté loolu côté boobu xam nga côté ban la peut li nga xam ne salle de classe la mais li nga xam peut parce que budget bi par par la. non budget budget global bi ñu bi ñu alloué éducation mooy 8 millions. éducation nekk na 26 millions bi ñu alloué éducation. parce que tey si 880 millions si 880 millions. 26 millions lañ si jagleel euh, éducation. amu tax may la tuutiwul foofu may yeggale. ñoon peut comme ni ma la ko waxee ñun amuñu. mais malgré loolu ñu voté ñi ngi wuti di indiwaat ndax boo xoolee. man damay man damay dem ay rencontre c'est vrai dafa tuuti. parce que ku ne éducation ah, moom ndax éducation moo yor dëkk. waaw éducation moo yor lépp. léegi parce que njàng mi bu doxul ban pourcentage 880 bon defuma pourcentage bi. parce ah, que parce que ñun peut-être wax leen parce que par ligne de crédit la ñuy jël moo tax j'ai pas fait le pourcentage. calculé wu ma ko mais lii dafa grave mais bon léegi. Ah. Euh, maire bi. waaw ne mënul bind mënul lire la. xam nga man loolu je m'y ndax lu tax man dama nekk sénégalais gëm sama dëkk boo gamee sa dëkk aussi da ngay gëm institution yi fi nekk. institution mooy lool coow loolu tey fii naa Sénégal ku ne jot nga si bi mu ci jotee moo kim ko peut être kim ko séqaloon ay recours am na fi amaat fi bi ñu demee moom defe naa moom la ñu jox euh, nu ko monsieur le maire moom la moom moo gagné procès bi moo tax mu toog fi ba léegi. waa léegi mun parce que déglu ma rek euh, Tunkara may ma foofu. parce que boo gëmee sa justice. bu fekkee tranché na da ngay mu tranché. parce que bu tranché woon kon defe naa ba léegi maire bi jug bu ñu sànni. li may wax mooy. yow mii di présidente commission éducation. waaw ce que monsieur le maire. waaw mën na bind mën na liir. gis naa mu bind gis naa mu liir. kon mën na bind mën na liir. waaw ci li ma gis gis naa bind gis liir moom moom niveau niveau jàngam fan la toll. non man nag lijjantiwuma loolu <laughs> mais xam naa daal mën na bind mën na liir. ay politiciens ñoo ay parce que xam nga ma wax la loolu. xanaa xanaa ndaare la ndaare la. bi li mu wax dafa leer. savoir lire et écrire mais laajuñu niveau waxuñu diplôme. ah non d' accord naa on n' a pas demandé de diplôme. dañu na mën a bind mën a lire dans n' importe quelle langue. on n' pas précisé le français. d' accord naa. loolu dem si ànd ak yow samp li ma laaj. yow nee nga gis nga ko mu bind mu liir waaw nangul nañ la mais maire bi ba fan la jàng loolu rek laa laaj. non man xawma ba fan la jàng. waaw léegi tamit yow. en tant que mais xam naa daal mën na bind mën na lire. waa d'accord waaw léegi est-ce que tamit trois bi précisé wul français précisé wul ah, wax nga ko ba pare d'accord encore une fois ba ñu demee tamit suñu justice Sénégal moom la jox. waaw moom moo gagné procès bi eh, yow procès yaa ngi fa dew ma mais bi ñëwee ñun bu ñëwee dañuy ah. toog rendre compte nit ñi monsieur le maire tamit nga euh, dem fa pour nga xam na gañe la bi sax xalaatoo war nañ ko yóbbu cours du soir mu gën a jàng ak yooyu cours du soir mi ngi bind li muy bind di lire hmm. di signé ay bi maire bi su ko mënul woon nañu kenn xamul ban classe la bu mën woon bind lire mais maire bi amul classe bu mu ñoom laajuñu classe dan ni na mën a bind mën a lire xam nañ ni laajul classe dans n'importe yow ah? euh, balaa ñëw Issa lan nga jeexale waxtu bi jàpp nañu waaw Tunkara euh, gën euh, émission bi mooy Sénégal ca kanam dañu bëgg a jaxaay dem ca kanam hmm. donc li nga xam ne mooy pour pourcentage bu ndaw boobu noonu ñuy xeeb ci éducation kon yaakaar naa ne santé war na ci am santé budget bi ñaata lañ ko compal bon budget bi man xaw ma ñaata lañ ko compal waaw yéen tamit comité de gestion santé doo leen dem toppatoo budget wu santé ñaata la waaw xam nga ci li ngay topp yéen da ngeen Tunkara yéen da toog rek di jàmbat. Tunkara. yow li yow budget santé yow la waroon gën a soxal yow yaa war a dem lijjanti ko yow yaa war a ñëw toog commission te yow normalement euh, loi bi daf la permettre budget yi ak compte mairie bi yow nga laaj ko mairie ñu jox la commune bi ñu jox la ko yow yaa waroon xam exactement rubrique santé euh, xam maanaam Issa yow tamit. mais Tunkara li ma mën a wax foofu mooy euh, commission jeunesse ni muy def ba ASC yi jot ay subventions. commission éducation ni muy def ba école yi chaque rentrée mu am lu mu leen jox commission santé bu defoon noonu. je pense que ne même bu dee benn un franc dinañ ko. jot ci d'accord si loolu mais li ma wax mooy yow dafa am liggéey boo deful Issa sa liggéey mooy tey yow en tant que comité de gestion de la santé nga dem taxawu mairie bi xam budget wu santé ñaata la te nga góorgóorlu ba fexe xaalis boobu kenn du ko dugal feneen fu dul santé. Euh, gis nga bi ñu rapproché wu euh, comme président commission santé mooy bi ñu coupé courant poste bi. dañ leen coupé woon courant. bien sûr. seen facture ñaata la woon. bon aux environs de cent cent et quelques mille ah. cent waaw ñu coupé leen courant ñu ñu ko waaw. bi ñu ko coupé man demoon naa gisi ko bon ma wax ko mu ne ma xaalis bi moo génnagul dafa nekk ci xam nga lenteur administrative loolu la ñu waxoon donc ça presque quatre mois cinq. ba léegi lenteur administrative il fa fallu que comité de santé bi jóg aussi seeti ay bonne volonté dugg génn ba mun a facture non no non eh, Issa y a un problème sérieux si yéen parce que liggéeyu leen tamit Issa yow xamuloo budget budget santé bi ñaata la xamuloo ko. yow Issa amuleen leen groupe électrogène si maternité bi. yow Issa non mais Issa franchement da ngeen di sàggan ba ñu leen di couper. mais Tunkara Tunkara coupé boobu noonu. mair bi ci boppam moo ñëw jël engagement ne facture poste de santé bi man maa koy fay ñu jóbul ko facture bi ci mairie ba ñu téye ko fa bañ couper ñu parce que santé bi. waaw lu fay ko. Ah, mais moo ne ñu indil leen ñu facture bi. waaw laaj ngeen ko loola fay ko. laajuñ ko ko mais Issa yéen tam ñu ñun ñun ñun pour suñu poste de santé fonctionnel pour suñu poste de santé fonctionnel li ñu def mooy. Tunkara dañu dem récupérer suñu facture fexe ay suñuy moyen ba dem fay. suñu maire bi nangu na ngeen mu waxoon mooy fay ngeen jox ko facture après fayu ko ngeen. jëlaat facture récupérer waat suñu facture dem fay suñu <laughs> courant. waaye monsieur le maire loolu nangu na ko. ah loolu de moo fi am. bon léegi tamit Issa loolu yëpp d'accord nañ ni maire bi foofu wàcc na yoon mais yow Issa danga war a gën a njaxlaf tamit comité de gestion bi ngeen xam budget wu santé ñaata la ngeen fexe ba xaalis bi kenn du ko détourné parce que fii xam nga xaalis dañ koy détourné lu leer ngeen fexe ba xaalis bi jaar santé benn ñaar Issa na ngeen góorgóorlu si groupe électrogène bi ñett Issa euh, délibéré bu amati si euh, conseil municipal bi na nga ko yor bu ñu yëgee ne délibéré am na jote convocation ba ñu yëg ko dinañ dem incha allah non léegi nag xam nga ñaara am da ngay toog information ñëw si yow wala nga dem jëli information léegi yow da ngay dem mairie nga xam lan moo fa xew. loolu les toog waratuñu bon. yow yow yow yow Mariam yow euh, soxna si yow ban message ngay jeexale c'est que yow mayoo ma sax ma yeggale parce que éducation bi nga ma laaj boo xoolee éducation dafa nekk lu am solo il fa lekk nga may ma ma yeggale tout tunkara da ngay bàyyi nappe bi parce que comme ni ma la. nappe loolu dama ko sañ. <laughs> waaw tamit. daaw dama la wax daaw distribué naa 6 millions fourniture scolaire école yi fi nekk. ren bi ma demee man dama ni sax monsieur le maire il faut ñu rompre avec la routine parce que maire yu bare da ngay gis dañuy jox xale yi ku ne benn kaye benn bic jëriñu xale yi dara dama dem si CODEC bi mi nga xam ne mooy collectif des yi nekk ci commune bi may leen yéen yéen a li nga xam ne mën na doxal njàng mi ko defee ñu jàppale leen ci ndax ku ne xam ne ne njàng mi am na ay changement muy programme paquet wax ñu ni ay photocopies dañu bëgg imprimante ndax lépp lu ñuy liggéey ci lañ koy liggéey bi ma demee soumettre que monsieur le maire aussi daf ci d'accord parce que monsieur le maire Marème bi ñu demee euh, bi ñu demee monsieur le maire moom franchement. Euh, affaire affaire coupure courant bi. waaw loolu gàcce la dinaa ci wax pour terminer dinaa ci wax pour terminer dinaa ci wax dinaa ci wax pour terminer. mais ren defe naa école bu nekk même lycée bi nga xam du sunu compétence ak CM doote na ne ku nekk machine imprimante ak photocopie. waaw monsieur le maire lu tax muy sàggal ay livre kay bi ci discipline. waaw loolu wax nga ko pare mais lu tax muy loolu yëpp def nañ ko defe naa ak huit écoles yëpp. ASC yi comme ni la ko jaane waxee ñoom ñëpp chaque année muy daaw muy rek amul jot politique yi di rag ñun def nañ lii non mais danga ma laaj il faut ma wax la sama réalisation ma la loolu de laaju ma la loolu de mais sama réalisation il monsieur le maire lu tax mu ah. sàggan ah. ba ñuy couper euh, poste de santé bi. mais xam nga mënu ma fi toog tamit yor commission éducation te duma wax samay réalisation. parce que tamit loolu affaire kii la ragg sa bopp yooyu. Ah ñun mais loolu loolu la population. di xam ci léegi lan a wax si affaire facture bi ñu fay. comme ni ma ko waxee man pas au courant. Ah parce que xëy peut-être le président commission santé mi ngi xëy na na la ci tontu. non mais man ci li ma yëg mooy. mais ci li ma yëg Euh, benn version nga am donc bul crier gum gàtt. mais les faits mooy dañ ko dañ ko dañ ko coupé man ci li ma yëg daaw amoon nañu subvention bu ñu waroon def pour euh, case de santé bi mais trésor ku ne xam na ni maire bi loo fa am xaalis këyitu leer ñoo ko fay génne daaw problème mu trésor yi la woon ren aussi dugalaan nan ko muy 7 millions 500 yoo xam ne dugal nan ko te ñu ngi xaar. looy jeexalee Marème Barry waxtu bi jàpp nañu. donc kon damay gërëm ñëpp di sant ñëpp. di gërëm monsieur Koulibaly kooku il faut ma def ko defe naa tey ji moo ma. ah monsieur Koulibaly moom namul dara moom loolu moom. Euh, loolu moom waaw mais <laughs> ma xëy na tey ji ñeme ba nekk ci politique bi donc il faut ma gërëm ko. très bien bon dama bëgg tamit nga joxal ma message. waaw jigéen ñi xeesal loolu ma si loolu di gërëm population jaxaay yëpp. waaw non wax jigéen ñi xeesal loo si wax. waaw jigéen ñi xeesal bon sans départ alaaji bi bu dee neex na ko amul problème. yow da ngay xeesal. ah xoolal ba xam rek laaj non yow man du ma xool dama ko ñeme loolu sañu ma ko yaa ngi jàkkaarloog man da nga bu monsieur Coulibaly Raymal loolu sañu ma ko. non yaa ngi jàkkaarloog man dama lay laaj rek. Marème Bari loo si wax loolu man li may wax mooy jigéen boobu xees mais may population jaxaay nee nañ parce que affaire sante la de waaw affaire santé publique la jigéen nañ ba xeesal waaw d'accord nga si d'accord naa ci <laughs> eh jigi delloo njukkal sama jigéen Marème Bari ku <laughs> waa Ndar yëpp yow yow waa Ndar yi waxoo waaw man Ndar Ndar la 100 pour cent nag may gërëm waa la famille Bari lew na et puis di gërëm euh, sama moroomu conseillers yi fi toog yëpp vraiment di rafetlu soutien bi ak teewaay bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp aywa loo hôpital bi. waaw dafa am benn hôpital bu ñu bu ñu commencé. depuis plan Jaxaay. bon ba léegi travaux yi dafa taxaw. donc ñuy ñaan aussi tamit état bi. vraiment mu mu mu góorgóorlu ci lan ngeen defagum pour hôpital bi. donc eh, euh, hôpital bi mbiru état la Tunkara. waaw mais lan ngeen defagum pour bëmëx état pour chaque fois bu ñu taxawee laaj waxu hôpital bi ñu ñëw taf yëngal. mais tam yéen da tooy franchement yéen doo def dara da ngeen toog rek di jàmbat. mais dañuy mais mais mais di jóg laa la wax def ay action pas wax. waaw mais mooy dañuy wax xam nga ñun hôpital bi mënuñ ko tabax dem leen non waxuma ngeen tabax dama ni ngeen def action dem ministère de la santé dem euh, présidence dem primature def dara waaw c'est-à-dire man dama bëggoon dama foofu parce que am na ñu dem démarche mais Issa Camara franchement yow comité de gestion bi yow moom dañ la war a daax rek parce que Issa yow même yëngu woo Issa yëngu Issa un peu de mouvement mais loolu population bi gis nañ tànk yi population bi euh, fii ñu leen di couper courant si si poste de santé bi poste de santé bi amul groupe hôpital bi kenn tabaxu ko yow budget euh, santé xamoo ko si commune bi mais Issa loolu jaaduwul mais mais Tunkara dama la bëggoon a wax tuuti mais dafa am ay partenaires yoo xam ne dañu ñëwoon ci poste de santé bi Issa ñax la foo affaire nga gën a kii tuuti euh, xam nga affaire Tunkara waa jaxaay waxuñ lool de <laughs> delloo njukal Issa Camara ak Marème Bari foog nga may ma ma gërëm sama ministre département mu monsieur Oumar eh, Gueye. wuyu ma fii du fii du gërëm parce que moom la ñu am Marème Bari Coulibaly. département bi moom la ñu am kon foog ñu gërëm <laughs> ah. delloo leen ma sama micro <laughs> waa euh, plan Jaxaay vraiment tey euh, ñooñu dalal fii euh, si seen gox bi mais gis nga vraiment gox bi dafa salte ah. waa plan Jaxaay seen kër yi vraiment kër yi baaxuñu. Euh, war nañ ko war nañ si góorgóor defar ko seen délégué de quartier yi gën a méngoog jamono comité de santé bi ñoom tam ñu gën a taxaw waa commission éducation ñoom ma xale yi dem jàngi vraiment plan Jaxaay liggéey moom euh, liggéey mi ngi fi boo xam ne euh, war nañ si bay waar jaan yi nga xam ne tamit ñu ngi fi génn ñoo ñëpp moytul jaan bi <laughs> non yow Assou Ndiaye la Assou Ndiaye rek moo ragal jaan Assou Ndiaye laa ko booleeg ak mbóot moom yooyu la <laughs> delloo njukkal tamit sunu ay euh, sunu ay technicien euh, Seydou Sow ak euh, Tafa Sow ak Mohamed Ndiaye sunu monteur di Oumar Diop waa vidéo waa son ak yéen nga xam ne yaa ngeen ñuy bàyyi xel si àdduna bi yëpp waa Ndar waa Léona quartier bari famille bari bi nekk Léona yëpp delloo leen njukkal dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam